Fafa TV. Aztec American Technology ànd ak distributeur agréé bii nga xam ni moom moo di Aven Electronics. waaw DJ Boubs ñëw fii ci Louga loo ak li ko wër. indi leen promotion spéciale ci seen produit yëpp mës nga gis lii ci produit Aztec yëpp waaw suñu Smart TV curve dernière génération ngeen mën a seetaan série yi nga xam ni moom moo nekk ci YouTube bi yëpp. DJ Boubs établissement Mbargu Seynabou Lo nekk ci garage Ñomre jàkkaarloog juma Maam Malick Sall. ñëw leen xool Aztec 24 pouces 32 pouces 43 50 ba 55 pouces li ëpp na waay ci ay njëg yoo xam ni nag. établissement Mbargu bu Lo nekk fi nga xamante ni mooy garage Ñomre jàkkaarloog juma maam Malick Sall nekk fii ci Louga. foofu rek ngeen ko mën a ame seen numéro téléphone nekk 77 424 68 41 ñu ngi leen fay xaare ak ay xéewal jàppandi. ku dolli cere yokk ñeex Aztec indil na leen ay mixeur yu xarañ ay split dernière génération tamit indi nañ ko technologie indil na leen ay ventilateur yu àndandoog télécommande ay chauffe-eau ngir sangu te seddaay bi du la indi benn problème ci ay njëkk yu yomb ak Aztec technologie mën ngeen installer seen kër chauffe-eau cuisinière Aztec 4 feux 5 feux yu ànd ak tourne brochette ñaw Aztec ñëw na ba noppi indi ay micro-ondes yu rafet ay congélateur yoo xam ni loo ci dugal mu congelé gaaw gaaw gaaw ba noppi durée de vie bi yàgg lool ñëw leen rek. établissement Mbargu Seynabou la nekk sa garage ñoom rek fi jàkkaarloog juma maam Malick Sall. woo ñu 77. 424 68 41 DJ Boubs Aztec Live to the future alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa rahima wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu euh, di sant sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek moo yooyoo cant ci lépp ñu ngi koy sant cant goo xam ne xamal nañ ko tàmbali waaye xamaluñ ko yem waay di ko ñaan mu yéegeel ñu sunu cant ca cantu jaam booba nga xam ne ba mu waxee ne ñu ngi sant sunu borom cantin goo xam ne ñu ngi koy ñaan mu defal ñu ko mu yelloog màggaayu jëmmam ga jëmmam jë ak màggaayu nguuram ga loola lottuloo malaaka ya xamuñ nuñ koy war a bindee cant googa yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp bañ fekki ko mu fay ñu ko mbokki yàlla yi euh, li tax ñu bind ñun ñëpp fi ne miin nañ ko ci sunuy nopp te mooy comme ay jaamu yàlla lañ nekkee fi njaamu yàlla subhanahu njaamu googu xaqi suñ borom la subhanahu wa taala njaamu googu dafa war a dundal suñuy waxtu yëpp bi maanaa sunuy waxtu yëpp dafa war a seey ci biir njaamu googu jeex ci biir njaamu googu sunu yaram yépp biir ak biti dafa war di kër-këri subaak ngoon ba bëccëg ci biir njaamu googu njaamu googu ci lañ war a def sunu dund lépp ndax loolooy li tax suñ boroom sàkkuñu sàkk dénd bii nga xam ne moom la ñu waajal pour ñu ko fi jaamoo leneen luñ fi nekkee lu mooy loolu te mooy njaamu ko ca nam ko bëggee ak nam ko gërëmee subhanahu wa taala leneen luñ fi nekkee lu dul loolu rek forme la ci formu de rébellion yi nga xam ne doomu aadama dana koy rébellé léegoo léeg ci kaw boromam subhanahu wa taala ma waxaat ko ne weneen nekkin wuñ fi bëgg nekkee wu bokkut ak wii suñ borom rëdd te gërëm ko yónni ko ay yonentam ci ay jaamam bind asamaan ak suuf ngir moom dong weneen nekkin wuñ fi bëgg a nekkee wudul woo wii xeetu féttéerlu la rébellion mooy féttéerlu féttéerlu mooy bañ xeetu féttéerlu la xeetu rébellion la boo xam ne doomu aadama da ko rébellé ci kaw boromam subhanahu wa mbokk yi luy ñëw lu nekk agsi na bu fekkee ne am na lu sori mooy lu dul ñëw waaye luñ ne léegi ñëw agsi na képp koo xam ne nag guddeeg bëccëg ñoo ko séq bu doxee guddeeg bëccëg dox ak moom bu doxul it guddeeg bëccëg moom ña ngay dox ak moom guddeeg bëccëg ñaari waruwaay lañ yoo xam ne dañuy jege lépp lu sori ñaari waruwaay lañ yoo xam ne daañu ràppal lépp lu bees lépp luñ fii tuddee lu bees ñaar ñii buñ yàggeek moom rappal ko bu deew yaram daañ ko rappal bu dee yére daañ ko rappal bu dee ay kër daañ ko rappal guddeeg bëccëg daañ ñu indil lépp lu ñu doon dikk te ñu ñu koy indil bis bu seet ñuy gis waxtu wu nekk am na ñuñ digoon ne leen ci ngeen di faatu waxtu wa ñëwee dem rek kenn mënu ci dara kon nag guddi yi ak bëccëg yi nañ ko jël def ko ay waruwaay yoo xam ne dañ cay teg suñuy jëf yu baax jëm ci suñu borom subhanahu wa taala balañ cay jeexal suñ wàll waxtu wuñ ci def ci lu dul borom bi tabaraka wa taala ëllëg danañ ñu ko won mu nekk réccu ki amal ba bëccëg nag moom mu ngi fi sax fi dàkk mooy sunu borom subhanahu wa taala ñun nag duñ fi sax kenn ku nekk xamul ay maamam yu njëkk ya fan lañ tàmbalee maam yu bari ci sunuy maam xamuñu leen waaye am na ki ñuñ jotoon a xam ñooñu dem nañ xam nañu sunuy baay sunu baay yooyu am na ci ñoo xam ne dem nañ kon kenn ci ñun sikki sàkkawut ne day dem nanu wutu yëbbal balaa a jot asamaan sii ak suuf si suñ borom nee na bindut ko ngiri caaxaan moo tax ñiy jël mbir mi di ko askane ci hasard ne daf fi ñëw rek asamaan ak suufa ak mbindee fii dañ fi ñëw suut fotan ñooñu ngël mënee leen jàpp ak réer moo leen jàpp waaye itam dañuy wax ne seytaan moo leen nax wax boobu ku ko wax ku nekk safaanoo naag wax la yàlla wax moo tax su boobaa dañuy daal di safaanoog borom ñi jàppee nag ne àdduna am ko la ku leen topp ñu foyee sa bopp daañ la foyee yow foyee sa dund foyee sa alal yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira baax na nag lool ñu xam ne mboolem tey république yi nga xam ne ñu ngi taxaw ci kaw suuf pas-pas boobu lañ gëm muy lan lii daf nekk rek par hasard ku dee jeexal nga moo tax ku leen topp daañ la foyee daañ foyee sa dund daañ yàq sa àdduna daañ yàq sa àllaaxira nañ déglu borom asamaan ak suuf nee na bindul ñu ngir caaxaan de ngir neen déedéet wa ma baynahuma laaibin beneen ba sax daf ne wa maa xalaqna samawati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq mu dëgg tax ñu bind am foofu ñu laaj ne ndax yow doomu aadama dangaa yaakaar ne dañ laa bind rek mboya wucc la ci nga an yutraka suda wala boog dangaa yaakaar ne ñun bi ñu leen di bind yàlla mooy wax ne moom bi muy bind mbaadu dañoo yaakaar ne foofu ak i caaxaan a taxoon kon po ak i caaxaan warta am place ki sunu dund jaam yàlla yi at mii mu ngi mel ni mu ngi tàggoo tey mooy ajuma ji ci mujj yaakaar na incha allah ajjuma ji moo mujj ci at mi atum jullit ñi nan ko bàyyi xel heure bii daaw taag taxawoon nañ fi ak at ya passé ak ya passé ya passé di ko fàttali suñ bopp naan mu ngi dem kon dund baa ngi dem dund bi dafa am fu mu yem keroog ba nga juddoo nga commencé di ci jël sa wàll nooy yu goo nooy yi wàññeeku na ca te du yokk loo xam bis bu set mu ngi wàññeeku te du yokk loola jeex na ba noppi nanu jàppe noonu dund bi ñu ngi waaj a jeexalum at pour tàmbalim at mu bees at mi nag dañ koo askanee ci gàddaay gàddaayu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ñu koy tuddee al aamul atum gàddaay gàddaay mbokk yi dafa fees dell ak ay maana ak bind ak mbi ak waaraate maana yooyoog bind yeeg waaraate yi ñooy leeral xelum kii dox jëm ci boromam subhanahu wa taala ñooy leeral itam ab xolam ndax nit ki dafa nekk ci gàddaay gu sax dàkk comme noonu ñu ko waxee léegi ci gannaaw moom mu neex la mu naqari la yaa ngi gàddaay dund bi yaa ngi laxas jóge ci àdduna 24 heures sur 24 yaa ngi ci dox yaa ngi ci gàddaay yaa ngi dox jëm fan jëm fa sa borom subhanahu wa loolu genn xeetu gàddaay la noonu yi nag na la yeneen xeeti gàddaay yee yëpp war a taqaloo ak gàddaay gii nga xam ne du dakk ci biir fan yi semaines yi weer yi at yi ay mbir yu bari ngi fi mbir yu bari yoo xam ne jëm jëmuñ fa yàlla subhanahu wa bakkan bànneexu bakkan seytaan ñoo cay woote yow mii dox nag te xam ne sa dox du taxaw ci yàlla nga jëm góorgóorlu yooyu nga xam ne ay gàllankoor la yépp nga jéggi leen gàddaay leen loolu mooy maanaam gàddaay moo tax ñu jël at mi tuddee ko atum gàddaay ga ndax ñooña dañoo gàddaayoon lépp lu nekk ci dund bi te loola àndul ak ngërëmal borom bi te tabaraka taala dañ ko gàddaayoon moo xam ay xalaat la woon ay doctrine la woon ay pas-pas la woon ay doxaliini dund la woon ci mbootaayu doomu aadama yi wala ci seeni atte wala ci seeni eh, doxaliinu adduna ñu koy tuddee politik seen lépp lu ci jëmut ci yàlla rek gàddaayoon nañ ko loola mooy gàddaay kon gàddaay dafa war a sax dàq gàddaay dafa war a matali dund bi lépp lépp lu jëmut fa yàlla subhanahu wa taala nga gàddaay ko gàddaay su boobaa dafay symboliser gàddaay lépp loo xam ne mooy wooteeb iblis gàddaay lépp loo xam ne kéefër la gàddaay lépp loo xam ne neen la jëm fan wooteeb yàlla subhanahu wa taala jëm ci dëggam gi loolu mooy gàddaay mbokk yi lii nag yonent yi yëpp salawaatullahi wa salaamu alayhim ak i seeni àndandoor moom lañ doon dund ndax ñoom dañoo ñëwoon ci kaw suuf suñ boroom yen leenu yen yen booba moom lañ doon tuddee risalatul xaq maanaam yenub dëgg yonentug dëgg yonentug jàmm adduna yëpp war caa amee jàmm loolu moom lañ doon indil ñoom adduna moo tax lu safaanoog loola rek gàddaayoon nañ incha allahu fii lañuy yemale sunu xutba xëy na ajjuma yii di ñëw daañu ko mën a mottali ngir bañ a guddal taxawaay bi lool di dalal seen xel nag ci ne li li ñu doon dégg ci accident alhamdulilahi rabbil alamin lu am la waaye sunu yaram jëleewut ci lenn luy xeetoog lox dañ ko sante suñu borom bu baax yal na yàlla musal ñu gën ñoo musal musal jullit ñi yëpp way feebar yi yëpp yal na yàlla subhanahu wa taala saafara leen yëkkati leen delloo leen ci seen i sago delloo leen ci seen i njaboot mboolem ku nekk ci xat-xat ak fu mën a nekk ci adduna bi yal na suñ borom subhanahu teggil ko xat-xat ya ñi nga xam ne itam ñu ngi kër këri pour samp kaddu dëgg ak fuñ mën a ne yal na yàlla jàppale leen kilifa yi yëpp yal na suñ borom may leen ñu na gàddaay nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye woon ñoo ki sahabaam jëm wan gannaaw saytaane ak i wooteem hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alih sant yàlla Aztec American Technology ànd ak distributeur agréé bii nga xam ni moom moo di Aven Electronics. waaw DJ Boubs ñëw fii ci Louga loo ak li ko wër. indi leen promotion spéciale ci seen produit yëpp mës nga gis lii ci produit Aztec yëpp waaw suñu Smart TV curve dernière génération ngeen mën a seetaan série yi nga xam ni moom moo nekk ci YouTube bi yëpp. DJ Boubs établissement Mbargu Seynabou Lo nekk ci garage Ñomre jàkkaarloog juma Maam Malick Sall. ñëw leen xool Aztec 24 pouces 32 pouces 43 50 ba 55 li ëpp na waay ci ay njëg yoo xam ni nag. établissement Mbargu bu Lo nekk fi nga xamante ni mooy garage Ñomre jàkkaarloog juma maam Malick Sall nekk fii ci Louga. foofu rek ngeen ko mën a amee. seen numéro téléphone nekk 77 424 68 41 ñu ngi leen fay xaare ak ay xéewal yi jàppandi. ku dolli cere yokk ñeex Aztec indil na leen ay mixeur yu xarañ ay split dernière génération tamit indi nañ ko technologie indil na leen ay ventilateur yu àndandoog télécommande ay chauffe-eau ngir sangu te seddaay bi du la indi benn problème ci ay njëkk yu yomb ak Aztec technologie mën ngeen installer seen kër chauffe-eau cuisinière Aztec 4 feux 5 feux yu ànd ak tourne brochette ñaw Aztec ñëw na ba noppi indi ay micro-ondes yu rafet ay congélateur yoo xam ni loo ci dugal mu congelé gaaw gaaw gaaw ba noppi durée de vie bi yàgg lool ñëw leen rek. établissement Mbargu Seynabu la nekk sa garage ñoom rek fi jàkkaarloog juma maam Malick Sall. woo ñu 77. 424 68 41 DJ Boubs Aztec Live to the